ëllëg fu mu dem lam fay am ñooña dañuy baax kon daal ci ci mu ci gàttal yàlla daal lan war a def ndax liggéey bu mel nii moom noo ci tabbee lu la ci yàlla tabbalee rek war ngaa sant yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko waxoon mooy ñi gën ci yéen mooy ñi xam alxuraan ba noppi wëlbatiku ko xam ne xayriyatu boobu nag yemul ci damay faral di wax ne yemul ci kiy jàng alxuraan ak ki koy jàngale waaye képp ko ca tabbi ak noo ca tabbee tabbi nga ci biir xayriyatu boobu muy waajur muy ndey ji muy mbokk mi muy ki am alalam di ko ci def kum ci mën a doon yiw suñu borom boobu nga xam ne du jeex boobu tabbi ci te yàlla nga ko yàlla ci jëf nag ni ko suñu borom misaale war na noo doy ci ne leb yàlla ci gën masalul ladina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin ambatat sab'a fi kulli sumbulatin la bi atu habba maanaam adaafa mudaafa